إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nugi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi dellu si waat di santaat sunu borom subhanahu wa taala bi mu defalaatee tawfiq ba ñu dellu si waat ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woowale góor ak woowale jigéen nga xam ni jamono dootu gisati aw nit yu mel ni ñoom comme ni ñu koy baamu ci jamono bu ne li al allaama al xaafid al zahabi di wax ni ci téeram bu am solo boobu di at-tazkira al imam zahabi dafa taalif ab téere bu mag tuddee ko téeru alaamin nubala loola boo ca delloo téere la bu la boo xam ni ëpp na fukki mu jàllal ak juróom ñi ca waxtaanee saxaaba yonent bi ba saxaaba ya jeexee mu teg ca taabiun ya ba taabiun ya jeexee mu toppalante di indi góor yu baax yi nga xam ni ñoo ñëw ci ginnaaw ba ni mu yegsee ci jamono ban sax boo demoo ca mujjal bu mujj ba da nga jëy fekk ay sëriñ yoo xam ni jàngal nañ ko mu tarjamal leen ci téere bi ba mu noppi ci siru alami nubala dafa taari beneen téere boo xam ne beneen synthèse la mu tënkaat nag ab téere boo xam ni mu ko tuddee ak tabsira ah ak tabsira wala ak tazkira téere boobu boo ci delloo dafa seet ña nga xam ni ñoo gën a fës ci njàmbaate ak góorgóorlu ci biir saxaaba yi mu beral leen téere boobu téere boobu boo ci delloo dafay wax du am solo mu ni aw góor a ngi nii ak aw jigéen woo xam ni jamono dooru gisati ñu ni mel soo bëggee gis ñu ni mel mu ne ñaari bi rek ma def pour gis leen mooy nga dem wax ni fañ leen suul gis leen ko wala nga ubbi téere yi fekk fan leen taalifal seen bi mën a gis ko waaye pour jamonoy dox da nga gis aw nit mun naan ñii de comme saxaaba ya nee na déedéet loolu dootul amati te wallahi wax na dëgg kon mbokk yi inna fi xasasihim la ibrahim soo ci waxtaanee bi saxaaba yooyu ak fàttaliku moo ci nekk ak waaw moo tax toog di waxtaanee seen jur dafay dolli aji ngëm-ngëm toog di waxtaanee seen jur dafay dolli aji góorgóorlu góorgóorlu toog di waxtaanee seen jur sax nag dafa nekk ab nattukaay boo xam ne kenn ku ne ci ñun da ciy nattu ak góorgóorlu ci sunna fan la toll maa xam nga kenn ku ne ci ñun ak góorgóorlu bu bëggee xam ci mu toll rek bu jëlee saxaaba ya teg ca kanamam dina xam fan la toll moo tax sunu mbokk mu baax daa wax na ju am solo mu ni balaa su ñàkk jama feeñ rek dañ laa tuddal saxaaba ya wallahi wax na dëgg wax ju am solo la ju ñor mu ne balaa su ñàkk jama feeñ rek dañ laa tuddal saxaaba ya damay wax ni ki gën a góorgóorlu ci ñun ki gën a jàmbaare ci ñun ñu koy xool bëtu tey bu mooy nag ñu diw dama ne kooka bu toogoon ci mbooloon saxaaba yi kertaa koy jàmm ba ñu bee ci ki gën a góorgóorlu ci ñun ki gën a jàmbaare ci ñun nga xam ni kenn ku ne ci ñun mi ngi naan ay su ma meloon ni diw dama ne diw moom bu ko yëkkati woon dugal ko ci mbooloon saxaaba yi du ñemee ci kertaa koy jàmm pour wan la ni nag du tolloog ñoom ci dama ci fenn ci wet kon waxtaanee dund ñooñu ñu am solo la rawatina ci jamono bii nga xam ni modèle yi dafa réer modèle yi ngëm yàlla yi dafa réer dafa taaw waxtaanee yi dina tax nit ki gën a xam nag ana xam lay jaar kon loolu woon ci dund lay Aïcha radiyallahu anha kenn ci ummil ummil muminin ñoo ngi bëgg a def ay fan ci dundam waaye li ko sabab mooy Aïcha ci boppam ak dundam dafa feesatu mu ay jàngale rawatina loo xam ne jullit bi jigéen mën na ko jëriñoo sama xëy mi ngi tàmbalee ci ay muha bi bët bi Aïcha ni ko yàlla defoon mu xarale ci wàllu faj bu ñu Aïcha dañ na dëddu àddina mbaa ñu ne ragal yàlla mbaa ñu ne góorgóorlu mbaa ñu ne jaamu yàlla waaye dama ne la Aïcha ci boppam yàlla daf ko defaloon kaw fiifu ak góorgóorloom daa yegg ci fii mooy ku xamoon la mu lu ñu tuddee wàllu faj faj nag su ma ko waxee nga yor garab olof ya nga xam ne day xool ne xasum nangam kat ku ko naan mu defal la nangam xasum buy kat ku ko def nii mu defal la nee ah kooku ca lay dugg ki nga xam ne moom ab figuram la yore ak doom bu ñu tuddee aspirine ca lay dugg ki nga xamante ni fajum sunna la yore boo boolee zaytu nag nangam nangam ca lay dugg kon tëbb la yaatu la muy faj waaye Aïcha yàlla daf koo defal mu nekk xaaral jigéen ju xaaral ci wàllu tëbb muy faj Urwa ibn Zubayr mu ne dama wax Aïcha ni ko yaa ummata la ajabu min fiqhik aqulu qawla nabiyillah wa ibnatu abi bakr ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو أو ما هو عمر لما قال عائشة li ko xool li ko xool ba mu yàgg mu yéem ma ndax ni mu mënee faj ni mu mënee tegtal ay garab boo nee sama nangam day nekk rek ay dama ne jëlal garabu sàngam ak garabu sàngam nga boole waaw ma ne ma ne Aïcha yow sama yaay man de du ma yéemu ci dégg gi nga dégg fiq man dégg gi nga dégg fiq doo moo ma yéem lu tax ndax damaa xam ni yeneen bi gën a dégg fiq ñëpp mooy sa borom kër kon jege ko war na maa tax nga dégg xam nga loolu xam kay mu ne ko du ma yéemu mukk ci xam gi nga xam aw askan ndax Aboubacar ay jabaay ci arab yi buñ masaan a jaaxle ci askan wu réer dañ naan wooy leen Aboubacar am ngeen mu ne waaye li ma yéem nag mooy ni nga mënee faj soo ko jàngee kum la dikkalee loolu moom moo ma jaaxal déglu la Aïcha mu ne ko mu ne qaal فضربت على منكبه عائشة جل وعلا لكي تجور سبك عروة وقالت ملك أي عرية أي عرية عروة ملك عرية أرابي يسلف المنون لكي تكامتك أو تصديركم ها لول نك كين من نك جبلو نيه حالاتي من نك جبلو وانك نك يو يعني دوك رك لول عربي نك كون فرام جا كبلا وطن عائشة ينتظر يا عائش نك نك جبلو تبا نيه حالاتي من نك أي عرية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفهم عند آخر عمره أو في آخر عمره وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعاس وكنت أعالجها له فمن ثم الله أكبر mu ne ko yéen ci xam ngeen ni xam naa aw xaw naa amul fan xam nga yéen ci gàtt fan loolu si gudd ko lool ndax fukki at ñaata la dund juróom benn fukk ak ñett kon gàtt fan waaye gudd la mu ne yonent bi ci mu jël tamit dundam dafa bari woon lu muy xeeraan waaw boo ko dee dugg juróom benn jëm kaw rek moom yaram wi commencé am lu muy daj léegi te jamono jooju moom moo tombe woon ak at yi ñu tuddee aamul wufuud ida jaa nasrullahi wal fath wa raayta annaas yadxuluuna fi diinillahi afwaajan mbooloo mi ñëw jóge Yaman mbooloo mi ñu jóge Basra mbooloo mi ñu jóge Kuufa maanaam dëkk bi yéen a mu jël suñu dundam chaque jour programme recevoir gan muy ëpp ci li muy def ndax jamono bi nga xam ne yàlla defoon na xam su màkka ah dafa dem ba nit ñi nag léegi xam ni comme l'islam nag muy dëkk ndax xam nga ni ci arab yi soo jàngee siyar borom xam-xam dañuy wax ni am na ñoo xam ne ñoom dañ dañuy toog di seetaan ndax ñu ndax xamuñu moo xam ne dañuy woote muy dëkk xamuñu ba xam du dëkk su yonent bi feexee ay noon ba gañe ne natt ga nekkoon original mu def ba gañe leen su boobaa da nga xam ni kat lii mooy dëgg kon ñu dox ko su fekkee da daa xeex ak ay mbokkam ay mbokkam rey su boobaa noppal nañu ay mbokkam noppal nañu yéen ñu ubbee mat màkk nag yéefar yi di tuub ay mbooloo mbooloo ko ah nga dégg na dëkk sàngam takk lañu ay ay ay caravane ñu ngi ñëw dëkk sàngam ñu ngi ñëw mbooloo yi di bari léegi nag gis nga jaxasoo nit ñi li tax mu am solo olof yi dañ ne nit ñi tey garab li jaxasoo nit ñi lu am solo gis nga li nga ñàkk lépp ñu ngi ci nit ñi alal nga ñàkk ñu ngi ci nit ñi xam-xam nga ñàkk ñu ngi ci nit ñi expérience bu ñaaw mi ngi ci nit ñi moo tax da ngay gis waa joo xam ne yàlla soxlawu ko poos bu diis waaye soxlaam yëpp koy faj am loolu ñu ko faral di gis da ngay koo xam yàlla dafa def dafa jëflante ñëpp am jàmm ñëpp ah mën a jëflante surtout mën a jëflante ak am solo ah waaye nga ne ñun rek yow daal jàpp nga ne daal sawaay moom mbir mi daal moom jiw rek la du déedéet du noonu leen tax la nga doon jëflante di jëflante ba jëflante bi yëpp yi te kenn xalaat nga gis di jëflante bi yëpp kuy jëflante bay jëflante yi ñëwee tam ci kenn dalaay la gën a mën a jëflante yi ñëwee ba fexe ko kër julli booy boo tax ngeen mëkkat yàlla booy boo ngeen nangam la léegi yëpp dafa la mbooloo yi di ñëw xam ngeen ni mbooloo yi ci biir day am ay mag am ñu am ay expérience façon xam-xam bu ne ñu koy indi ah it nee na ci biir mbooloo yooya kenn day ñëw mu ne tey rek yàlla dañu ndikk li mooy metti benn waaye dafa ndikk luy metti dama boo tëbbee nangam ak nangam boo ko ci tayee rek mu wér ah it nee na yéen li comme may soxna bu law ah li ëpp man la ko doon digal ma di ko def nga xam ne man nga xam ne yaa ngi mbir yu teewoo waaye tam yu bari yam ni man la ko doon digal ma di ko def gis nga su ma déggee ko ne ko nit ki day metti mu ne nangam nit ki day boo ko defee nangam ah mu daal di jël garab boobu am na xeetu xob ci garab yi damaa teel loolu war xob la nga xeetu xob woowu da nga koy jël nga di ko tax ci digg ginnaaw ah jël xeer bu ñuy paase teg ko ba mu tànn nga teg ko ci kaw xob bi du lakk yaram bi nga teg ko ci kaw xob bi ah déet du xob tam waneen xob la ah du mbaante am na xob maa teewloo sur xob bi benn ngoo léeg-léeg ñu ni ndoxum si di dalaa dal bay këpp sa yaram bi bay këpp wey ñu ne ah bu dem de daana faj feebari bii waaye dina faj feebari bi su ma waa boo jëlee ko dëgg di ko xóoyal di ko naan suba di ko naan goon bi idni rabbil alamina mën naa leen ñu ne ah bopp bi kat day faral di nekk ñu ne yonent bi daana faje bopp buy nekk ak ndiglu yu nekk ak wet yu nekk ak yaram yu nekk li ñu tuddee gàcc gàcc nag am na bis bi ci yonent bi taamu sallallahu alayhi wa sallam léegi soo koy def mu bañ a nekk suuf sedd mu nekk waxtu wu tàng ñu génne deret bu deeja yonent yàlla mu ne bokk na ci li ñuy fajoo ah bokk na ci kat bopp muy nekk ma jël kuddal tap ko fii ba mu tap ah naa di koy takk ñu ne si bur baa ngi jub si nawet baa ngi jub si ñu ne nga jël li ñuy tuddee uul xam ngeen uul xale yi xam ngeen uul nga jël sunguf uul ku ñu xam ko nga jël sunguf uul boo ko jëlee jël lem mélangé ko sunguf uul lem sunguf uul lem nga mélangé ko ba mu mélangé ko nga def ko ay dam ah comme naan di ko lekk bi idni rabbil alamin da lay aar ci buru ah ñu ne ah nit ki daa am problème sa bët dënn bi day métti rek ñu ne da ngay jël huile d'olive nga toj nen boo tojee nen nga boole ko zone zone bi huile d'olive bi nga bëti ko day gaaw a yàqu na boo ci defee tuuti nga ci defar bu yàqu nga defaraat nga di ko naan bi idni rabbil alamin day faj problème dënn nga ni taan moo la sonal bu la neexee boo xëyee nga lekk laaj bu la neexee boo xëyee nga jël kudd huile d'olive gerte nga naan ko bii ne rabbil alamin day wér ak ak ak ak ak ak noonu du koy toppee xam ngeen kon l'islam ñàkk dara de nun moo jàngut nun moo jàngut noo jiimu nga xam te ñi gën a climat yi mooy gis nga fi mu nekk nii soo dikkoon ci man ma ne la dama sob nga ne ma sama taa ni damaa sonal fi mu ne ma jox la bu jël huile d'olive fi mu ne nga dem ca pharmacie bi ñu gis fausse xooxal la kii bi ñu see sampale madame bi wala docteur bi nga jëndee ko ñaari junni ca pharmacie loolu moo gën a dal sam xel nga jiital ko huile de bi loolu moo tax dañ naan la sa biir day metti ñu la naanal lem nga naan lem lem du ko xaj ba nga dikkee seen pour mun la sa biir baax rek allahu akbar benn waaye sax ñëw cër sa xam ni ko sama mag ci biir day metti daw mu ne ko jox ko lem mu dem ci kat ni ko affaire baa ngay continuer mu ne ko joxaat ko lem mu dem ci ni ko ak mu ne ko biir laay xel waaw biir bàyyi kan xam nga sax mooy gis ni ci kenn laay li Ibn Xayim di wax dama di ko tudd bis bu ne mooy ñawkat jaati fonkal ma koy dóor am na ci solo ah ñawkat jaati fonkal ma koy dóor am na ci solo nit ki dana ñaan ba nag yàlla du ko nangu ndax inna allah la yaqbal du'a min qalbi ghafilin la boo xam ne muy ñaan damay ñaan quarante secondes yàlla du ko nangu ñu ngi def nag benn garab ah xaaral ma essayé jël ba xam yéen tamit nee na kat huile d'olive day faj nangam nag leen ne kulu sayta wajtahilu bi lekk leen ci huile d'olive dañu ko naan ndax ñu ngi jóge ci garab bu barkeel dama ne ci am problème yàq yàq sax laa ci biir di naan huile d'olive loolu da koy faj waaye da nga koy naan ba sonn du la faj pourquoi parce que gëm-gëm ngay def gis nga kon yéen xasoo loolu gëm-gëm bi rek rek wallahi yéen si yàlla mu ne maa mu sam-sam li maa sori bala ndoxum sam-sam moom loo ci jublu boo ko naanee xam ko si xoolal loo ci jublu boo ko naanee xam ko si alaamatu bun xayim dafa feebar feebar bu son bu ko bu ko sonal sax bu ko sonal bu ko sonal xam nga lan la ko bajee ndoxum sam-sam li mu wéree su fekkee jumba ca la taalibe téeréem boobu ñu tuddee ah ma daal di taalibe ci manaazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ah waaye dama ne la ndoxum sam-sam li ma suri bala moo tax borom xam-xam da ngay jàng koo xam tudd gën a moom dafa dem ba màkka mu ne ndox li ma suri bala mu ne allahumma inni ashrabu hada al maa li dama'i yawm al qiyama yàlla maa ngi naan ndox mi ngir dama bëgg àllaaxira bu nit ñi mar man du ma mar ah dinaa liggéey ab jigéen boo xam ni ah ab jigéen boo xam ni ci jigéeni yéeféer yi ci dëkk Europe ah su la Italie benn ci réew yi daal benn borom xam-xam moo koy nekk nii ndaw si dafa feebar bi mu feebaree mu dem ba ñu digal ko ni ko ah yow kat sax sàngam ci ngay dee dafa am ko ne cancer de foie cancer xaw ñu ne ko yow kat ak tàngam ci ngay dee xam nga loolu am na yoo xamante ni xam-xam mën na ko saxal yàlla na moo xam koy dee ku dul dee waaye li xam-xam saxal moom lii mën naa dëgg mën naa jiw yoon ndaw si yàlla firtal ko ni ndaw julit la woon waaye nag julit bu sàggat la xam nga bu ñu nee la si yëg kàmmam ngay dee moom yaakaar naa kay jaamu yàlla dana wuuteeg yaakaar naa xelam dem ci umra mu tàggu borom këram ni ko dama bëgg ñu ànd maa yow ñu umra ci ñu ànd dem maa bi ñu demee ba noonu mu ni bi mu dikkee ci ndoxum zamzam mu dégg wax leen sax la mu jël ndoxu zamzam bi tàllal dem ci kaaba bi jàpp ci mortay kaaba bi di jooy di ñaan di li ngeen ñëwee si di jooy di ñaan ba pare da nga yëkkati ndox mi naan bi mais da koo naan rek mel ni affaire bi da koo yabal demoon nee na bi mu demee nee na li mu génne lépp ñuul la ñuul la ñuul ba ñemewu koo xool nee na rek ba pare sampaat sama xel demaat tànqaat ci ndoxu zamzam bi delluwaat ba ma demoon defaat la ma defoon affaire bi yóbbuwaat na comme ni nga góor nee na mu dikkee li mu génn moo gën a ñuul la mu njëkkoon a génn nee na ma delluwaat ca kaaba ga defaat na ma defoon defaat ca zamzam defaat na ma defoon affaire bi defaat na nam ma defoon ma dellu si waat ci zam ci wala wax léegi nag bi muy génn di génne affaire bi soxna nee na bi mu commencé génne lu soxna ci la sentir mel ni ku yenn woonu ko mu ñu yenn la bi mu ñibbitee fekk nag dañ ko waxal fi ngay def ba soxla dana ko déedéet kii du yow ki ko doon tere jàkkaarloo moom ñu ko déedéet kii du yow ndax dossier bii waa ji war naa dee ci daf tàngam pour wan na zamzam lim man te la bi newoon jógu fi wala fii nee nañ ñu ko defoon naw ñu ko def nawoon fi nekku gis nga kon faj lem day suul day xabba futal yéen jàll ak xabatu sawda yéen jàll lu ne lay def sam def dee yooyu mooy garab sunna yi waaye am na garab yoo xam ci garab bi àll bii la garab bi àll bii la ah manqué rand buy caxat yii yëpp ay garab la ñuy faj gis nga ay nuage yi ñii ñu nan la ci garab yi ñii ñu nañ ko jëlee gis nga doom yi comprimé yii ngay naan yëpp ñu ko jëlee fii da ngay feebar ñu ne demal hôpital nga jënd benn garab bu ñuy wax la sayaateen defe naa noonu lañ koy wax subhanallah al allaamatu ibnul qayyim boo demee ci sabon nabawi man lay wax ni moom xamul ci pratiquement lu ci gën a gaaw limon fajal ci orange fajalal orange ba kanam bi fees rek nga di ko dëkkee nag xamul ci fajum sooy wala pratiquement lu gaaw kan ñoom ñu dem defal la ko benn garab tuddee la ko seateen rafetal ko utal ko fajat bu nu doore yóbbu ko ca biir pharmacie ba nag di ko jaayal lu cher nga di ko jënd nag ah ak sa imaan lii moo gën a mën a faj garab yaram bi sama kon bunt bi soo gisee ma di ci toll mooy jamono bi ñu toll dafa jaar jullit ñi delluwaat te jàngale yonent bi rabdan jamila ndax muy suñu jàmm yàlla du ñëwal axira kon gis nga kon Aïcha nee na loolu yonent bi dañ ko doon diggal ay garab bu ko defee képp ku ko diggal rek mu ne su ma ko dekkalee ma man ko loolu falaa jaare ma man faj kon Richard mu ni dégg naa sama bàyyi mu ne Aïcha de mu gën a nekk koo xam ni ku ko gën a xam ay alquran ku ko gën a xam miraal ku gën a xam sunna ku gën a xam farata wala way yi nga xam ne arab yi moom lañ doon way ci mokkal ko wala xam aw askan wala faj nee na loolu yéem na ma lool mu ne bi ma ko laajee daf maa wax lu ne ni la xool waxoon mu ne garab yi doon tegtal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom da ko daan jël su ko defee daal di koy jël ñaari tomb mu ne fii xëll na si laa fa rachida léegi nag day taan Aïcha borom këram faatu la léegi nag tënkëb dundam ci yore suñu faatu lu téemaane la juróom ñetti at juróom ñeenti at juróom benni at lañ may Aïcha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom benni at lañ may Aïcha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag da nga yégg ci média yi ñuy wax jigéen ñi bu ñu leen cee cee teel a maye parce que teel a maye baaxul wallahi teel a maye baaxul bu dee ak ñu dem da ngaa wéeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax du lii moom rek moo ko def déedéet waaw d' accord nañ kay jigéen ñi bu leen teel kenn teel a maye nga ne d' accord nañ kay bu leen kenn teel a maye dañ leen bàyyi ci biir école yi góor ñi jigéen ñi di daaraanee njaam bu leen kenn teel a maye te nañ leen may ay carte yoo xamante ni ku bëgg a génn ba caaxaan yi ah njaalo ñu may la carte boobu nga def wax nga dëgg tey bu leen kenn teel a may te nga mën a jënd sa télé bàyyi ko ci kër gi ah xale bi di seetaan ay film yoo xam ni góor loolu su pare mu dem jëndi ko wax nga dëgg tey bu leen kenn teel a may te dañ leen may autorisation njaalo wax nga dëgg tey bu leen kenn teel a may te nga mën a jënd sax cinquante milliards wala lu ko jege jëndee ko ay carte nga taara ko ci réew mi pourquoi parce que boo jël subhanallah wallahi am na koo xam ne su yeboo ñaanal ko yàlla boo ko déggoo xam nga bu ñu gisee lu muy wax day wax naa su fekkee ni mënoo nag mënoo naan su fekkee mënoo naan te bëgg ngaa fekk muy da ngay jëfandikoo lii xoolal lii mooy lan lii mooy laay ñu jël daal man dañ koy maye université yi am na ku ma wax ni ma am na appartement boo xam ne li seen poos yi kale bi ñu koy jëlee ay rapport moo ko kale subhanallah ku ma nekk moom moo ko loolu gis nii musiba kon léegi bu ñu kenn teel a may waaye nañ leen bàyyi ñu jaar moo tax wallahi gis nga da ngay nekk am kutumbal moo xam ne xamoo lu bëri dañuy yëkkati ay information dina jox leen fekk am na ne jarul ko parce que dañoo bëgg saxal góor ak jigéen ñu yem te góor jigéen pour ñu yem xaw ma tax nekk jigéen ñuy jàng bu ñu jàngee mën a bañ a si continuer dinañ jàng ba am seen i jàng bu ko defee góor di tax fee jigéen tax fee bu ko defee boo nekk doo génn ci anam kay damay génn danañ dem nag xam nga fu ñu jëm góor ñaar jigéen benn dafa ñàkk a màndu léegi fëccëg maa ngi déglu suuna ay réew yoo xam ni voté nañ peine de mort ci boppam dafa xew tey jàpp di suuna peine de mort ku def nangam nañ la rey loolu dafa jóge lu yàlla yi dafa nekk ah allahu akbar yàlla yi tudd xam nga lu ñu wax wala ko fi ci baax xayaatul yàqulil albaab ndax xam ngeen li may wax ku def nangam nañ ko baax su ngeen ko defee dund ku dal ngeen di am te neex yéen borom xel yi ban bàyyi neen bàyyi doom leen jamono ci kanam ku gudd kan ku gudd fan rek benn ci def mooy ñu xam maanaam yeneen xasal mu ngi jëloon aaj ci juróom-benn ñu jox ko ci juróom-ñeent mu dund ak moom yeneen juróom-ñeent mu fukk ak juróom-ñett yeneen ci bi baax xoolal jigéen joo xam ci fukki at ak juróom-ñett ci la ñàkkee borom këram mu dem ba dund juróom benn fukki at wala juróom-benn fukki at yu jegee ci amaatul borom kër sax bi ragal yàlla ak njub ak mbaax ak maante ak jàngal jàngale kooku mooy Aïcha radiallahu anha kon yonente bi faatu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Aïcha dafa xool kenn la ko yonente bi saxaloon muy woor julli julli jàng jàngale wataare sunna ak am am ak ay jikko yu rafet noonu la nekkee ci xilaafa bàyyam ak bakar ak Omar ibn al-Khattab ak Ali ibn Abi Talib ak Osman ko jiitu waaye Aïcha radiyallahu anha ndeysaan naka la yàlla borom téere mu ne fa kayfa law raa zamanana haada ay tabu fi tam sunu jamono bi xamu fu mu jóg ah kan woo ko jóg Aïcha ci boppam yàlla ko may ci ragal yàlla saa bu ñu ko tàggee nit ku baax wala ab borom xam-xam journée ci tànga lay am dafay tiit dafay jooy dafay da ngay yëg ni kii day am la ko métti ñu ko mën a tàgge ak borom xam-xam wala ci tàgge ko ci yàlla wala ku amal njëriñ ci la ah ndax ay dafa dafa xamoon ni bokk na ci mandargay jeexu jamono mooy yàlla di faat borom xam-xam yi di faat borom xam-xam yi waaye di faataale ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax te wallahi loolu ci lañ toll tey wala ak yi paase la ulama yi ngeen xam borom xam-xam yi ngeen xam ah ñu Cheikh Albani ñoom ñoom ñoom ibn Utay yi ñoom ñoom Jabri yi ñoom ak ñeneen ñeneen ñeneen kon borom xam-xam yooyu ñu nekk nag toog ci ak ñu Cheikh Nasrul Albani paasoo ak ibn Utay yi léegi ci yàlla ba tëdd ba guddi mu génn ci ñaari biddiw yu paase ca asamaan sa ñu dillu ci kaw suuf si biñ ko waxee benn borom xam-xam dafa wax ne ah loolu de mooy ku nar a amal njëriñ islam dana daal ci ak moom ci la soxna ko faako wax ñu ngi baal kon dama la bëgg wax ne aay da loolu gis ci loolu est-ce que ñu ngi gis ci loolu yow waxuma la waxuma la am borom xam-xam waaye dama gis koy dundal muy lekk di naan di bëgg li ngay bëgg di bañ li ngay bañ ngeen di ànd dama ne boo xëyee di gas ko suuf bu dee gis nga war ngaa dem ci gannaaw tuuti Aïcha radiyallahu anha dana wax ay wax ñu ne xam ne ñu baax ñi nga xam ne dañ daan dellu ñoom day dem nañ ñi di def wala gën a jaay daal xamatuñ xoolal dana wax day sax tey yàlla yàlla yoon Aïcha xoolal nga xam ne kenn saxaaba ya la ko xool xool ko ko ko saxaaba ya waaye comme moo féete mu dee baax Aïcha jamono ci seen day nga xam ne xëy na pour la doon muy tey ko ay di gëm suñu jamono bii nga xam ne ñun bonee tey ak ñi baax ci borom sax xam ne bare subhanallah xam nga lii bu ñu la koy wax tey yow boo jàngoon di ko gën a xam boo demee téere yu mel ni téere ala bi bala xam wala nga jaayoo ni ay nga xam ni borom xam-xam yi ni ñuy tëj tëjee téere yi dañuy indi ak comme ku mel ni nekkat yi day indi atum juróom fukkeelu ak benn ci gàttaay xam nga loolu day xam nga ko yàq ci ñaar yi sax yi baax ci subhanallah ay junni junni junni saxaaba yi baax ci leen ay junni junni junni saxaaba yi baax ci leen yooyu kon ay gis la yoo xam ne mooy tax lu gën a dëggal wax ji ñu gën a xam ni sax bi mu am wax lii dara li nga xam ne moo dégg wax ci aw wax nga nekk da nekk xalaat mu ni tey yàlla yàlla yéen a saabaay ndax aw wax incha allah ko dégg mu ni tegam incha allah loolu yéemu ci ay tey mu fekkee woon suñu jamono man de maa ngi yéemu ci waaw tey mu fekkee woon suñu jamono moo tax borom téere bi tey ñii ñëpp de maa ngi yéemu ci ñoom tey mu fekkee woon suñu jamono wallahi wax nañ dëgg loolu saxaaba yi daan def buñ daan jàngal tey jiw nee na yàlla yàlla bu fekkee woon jamono ñu tey jiw mu ne man de bu fekkee woon suñu jamono bi xaw ma lu kon Aïcha radiyallahu anha ñii la gën ci yéen ñu saxaaba mu teg ci ñaari at day saan yeneen ci dikkal ko ci soo mooy man wala atas tuuti mooy faatu bàyyi di am watu ci biir kon jafe-jafe yàlla ñu soxtalal ko ci kaw Aïcha radiyallahu anha Aïcha nee na day am bakar feebaree day saan ma ñëw kii ko xam ne kii moom tane est-ce que xam nga nit day toll boo xam ne moom tane moo tax ñuy dugg nit bu tollee fii man woo mag wala ba toog mag mu yàgg fekkee wala ba toog ñoom bu ñu xool dañuy xam ne kii moom tawee ay tam dama ñëw ba tiim Abubakar xam ne ah góor gu baax ba tey tawee góor gi gënoon jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk taarix lay tey moom tawee nee na li ma ko fekkee muy moom xam naa ne kii moom tey moom du fi yegg mu ni fata masal su baagal bay ma la di wax nii mu ni la am ko kama yënni saraaw ajil fata إذا أخرجت يوما وضاق به الصبر وضاق بها الصبر الشيء tey nag laa doon xam ne ndekk ci alal ay koppa ay koppa tey laa doon xam ne ndekk gis ci luñ ko bëree bëree ak um koo tey laa doon xam ne loo baax baax tey laa doon xam ne loo bari bari xam-xam ndekk bu dee gisee rek affaire bi tey allahu akbar nee na Abubakar mu ni fanaa ilayhi xalqa Allah fan Abubakar يعالج ما يعالجه من السكرات وانتم تعلمون ما سكرة الموت. أو بكر من التدريب سورة سكرات كل شيء من خمس سكرات دي من دوت المحبوب. عمرو بن العاص بن والله سكرات دي من مل mun ñu jëlandoo téeméeri jaaf yu daw tawandoo ko dafa mel ni moo gën a sedd sukuraat bi xam nga kañ la wax loolu li muy sukuraat la sukuraat am na jëlaaw mu ni jëlaloon téeméeri jaam yi ñoom tawadoon mu ni dafa mel ni loolaa gën a métti sukuraatu dee yeneen si ñoom duñ ko laalee sukuraatu dee lu mel xam nga lu wax mais dafa mel ni benn waaye bu dem ca àll ba jëlum tax xam ngeen tax ak dëkk nga pelef ak tax kaam sum wala demee noonu nga jël saxas bi feres ko dindi xob yi mu def yax yi kese mu def dég yi kese nga jaaral loolu ci biir ci biir yaram mooy di ko wëndeel ci bët yi di ko wëndeel ba mu neex la rek nga gis mu génn mu ne moom jàpp nañ noonu la suturaat bi la mbokk yi est ce que loolu mën ngeen koy xalaat kan la ci ñun suturaat bi rek bu ci mbaa bu ci yaram ci lu la nekk boo demee sa borom looy wax ndax am ko lu ndaw ndaw ndaw mu mën a yëngu mbokk yi wallaay dafay soxla saw di wax mbokk yi nañu góorgóorlu alal ak xol nañu am lu mën a yëngu yàlla dimbale ma maa ngi taxaw ci nangam garab ba ma taxay bi mu sonn lool yàq ko la dara amul lu lekk amul lu naan man ak moom kenn ak yàlla ma xëccali ko yàlla lii nga ma koy def yow rek ma yaa taxaw ma def ko yàlla xam nga mbokk yi ku bëgg ku la yërëm da ngay yërëm jëlu ku bëgg ko nga joxal bëgg da ngay téye ci lu wóor est-ce que am nga ci yooyu benn boo yaakaar ah ci tamit aw waxal bàyyi li mu nekkee sukuraat ak karam gu mel ni ku mel mu ne Aïcha lañ nekk daaka yaa umal muminin loolu mooy wax yow lay julit ñi mu ne waaye wax bu dëgg bi kay moom la yàlla wa jaa'at sakratul mawti bil haqqi dalika ma kunta minhu tahid وجاءت ذكر سكرة الموت سكرات بالحق جد ذلك ليلة ما كنت منه تحيط منظرا جديدا buñ la waxee dee nga xamal say lox ndax du dugg la ci buñ la waxee dee bu ñuy joxe ñu saa bañ bu diw dee wala ii dee bu keneen dee keneen dee waaye moom bu kenn wax na yow yaay ki nga xam ne buñ la mu tara ci koy dee ah dee ko mu la gën a kay ndax dëgg na ndaw bi des na ذلك ما كنت منه تحيط li nga doon jiit jiital mi ngi li nga doon sori mi ngi li nga doon wedd mi ngi mu ne loolu mooy wax ndeysaan Aïcha am bakkan ni ko Aïcha sax am nga ni njaboot ci jur yëpp amul ku la ci gën a bëgg ci yow loolu day faral di am sama jabar yii comme ni ma koy faral di waxee sama soxna yii ñoom ñëpp bokk ci man yem kii kii kii kii sama doom yii ñoom ñëpp bokk ci yow yem kii kii kii loolu ku la wax ne ko ëppoo rek mënul nekk daal loo xam ne moomu yàlla ma ko yem moo tax bu xam Abdullah ibn Umar ci tànk sunna dafa amoon doom boo xam ne doom di baax la di góorgóorlu di bëgg sunna di ñuy wax Taalib ibn Abdullah Taalib ibn Abdullah ibn Umar lay tax Taalib bi daf ko bëggoon ndax doom bi dafa xam góorgóorlu ndax bàyyi boobu seen Taalib ibn Ibn Umar nit ñi naan ko yow li ngay def jaaduwul ak sa doom ji du gën a bëgg dëkk la gën a di dëkk ni mooy damay defal kii mënu defal sama yoon dinaa naan waa bu ci bëgg bëgg xol ci lay gën a mu ne yalumunani fi saalimin wa alumuhu wa jildatin bayna al ayni wal anfi saalim muy nit ñaa ngi naan ne dañ may yedd ci bëgg gi ma gën a bëgg saalim dama ni li may dund bu ma ko làq ma ko def ne sama diggante bakkan bee sama bët yi ma ne mooy saalim li ko wa jildatin bayna al ayni wal anfi saalim dama ni der bi nga sama diggante bakkan bee bët bi mooy saalim laa li ma nekk bët mu ko làq wala yéen sa fan loxo yow xaatima sa bubaatul nit ñi xaatima xaam ndox ci na morso la ci man ku ko doon xam naa yëg sax kaam ñu koy jeex na yow xaatim mu ne ndox la ci man ku ko doon xam naa yëg sax sama mettul ma mu ne ku ko loxo loxo na kon mu ne ko amoo tamit daa xam ne ni ay li ma jur yow laa ci gën a bëgg ba tax na may naa la tool dem naa ba ci biir daal gis naa ne tool bi daal boo ko mënee bàyyi génne waatal may bi nga jox wala ko suñu raata bu ñëwee bu may séddale ci jël ay ci ko sama am la baax li ma digal ma xam kon nga mayoon na ko ay ci li ñu dul ay ca delloowaate suñu raata ngir nañ ko séddale ay ca mu ni xaw nga kat toog fukki fan ak juróom feebar ba bisub altine bisub altine ñu dem ba altine waaj a jeex ñu dugg ci guddi voilà mu tombee ñaar fukki fan ak ñaar ci jumaa dal aaxir allahu akbar mooy weer wi nekk weer wi nekk nekk ci jeexintal bi ñuy ila Abu Bakar radiyallahu anhu wa arda wa an jamii sahabati ajmain nee na bi loolu amee ndeysaan ku ne ñu bëgg yële taxal mu ni ah Abu Bakar mu naan laaj mu ni waaw fi ay yawmin maata rasulullah ay dafa jàppale nga ban bis la yonent bi faatu dafa bëgg yonent bi bëri naan yàlla bis bi yonent bi faatu nag moo tax yàlla defal ko li mu doon ñaan lépp ak yonent bi am la am bis bi paase la léeg-léeg nga dégg nañu ñu way tàgg ku ñuy ak tëkkalee aw bakar ak yeneen bi waaye ci lañ door a tëkkalee wallaay kii la wax dina wax dëgg yàlla du neex du neex de nga dégg nag ñuy wax ay way di jël yéen di leen tëkkalee yeneen bi di leen tëkkalee aw bakar wallaay kii la kii mooy Babacar mu wér kañ la leen di paas ñu ne ko bisum altine ah mu ni masha allah ah inni la arju fima bayni wa bayna layla kon de maa ngi yaakaar ni saa bi tey mu nekk bis bis bis di gën a fee guddi ndax bisu altine bi voilà kon ñoom te ni dana ñu xool yàgg na waaw yii la nag ñooy ñan ba ñu ñu ne ñooy ñu ne ko loolu ñooy ñan ba daje bi ñu daje yàlla ñoom biñ ko tiit buñ ko yéegee moom dara buñ ko yéegee ko xool ñu tiit ko te yàgg ci ñoom dañuy dem ba nekk te benn ñoom dañoo yàqante ne parce que dañoo def lu wóor dañoo def lu wóor xool ñu ngi tëdd ci kaw na suba naan kii la ko xam suba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba léegi maa ngi laaj ba yàlla li ñu tolloo yaa ngi fàttali ko ndax ay xel neex la xam mu ne ko ba ngeen tàng yàlla saxal ci lan ngeen ko tàngee aw ba rek sa aay jëli ko fii talaata ak waa bi bii ko ñetti moo ko lañ ko daggal yu weex daal ah amul nañ ci ñëw xamit nañ ci ñëw tubay ñëwal ñu ko def daal ñetti moo ko daal lañ jël xaar ko yu wuute lëmal ko benn bi lëmal sàtt bi ci def ba mujj mooy ba gën a rëy comme ni ngeen xam ñu koy defal néew bu ngeen ko xamee ba mujj moom mooy gën a rëy noonu mooy sunna jël keneen ku mu defal leneen lu dul lii defal na ne dul loolu sunna yàlla ci aw bakar ni ayta ubbil sama wax ne leen sama yére tànkam nga jël ko su ma faatoo léegi léegi léegi ni ngeen ma ko tànk allahu akbar kii kii dëgg dëgg fii tut ni tey day dajeeg borom kii am na lu mu def kii am na lu mu yaakaar moo tax wallaay yéen loo yaakaar balaa nga faa wax am solo ay bu mu mu génne yére bi xool yére bi am ay gàtt gàtt ci xotteeku xotteeku mu ne baax bàyyi bi moom boo baaxee kenn du la ko mën a tàngi lu tax gàtt gàtt yi xotteeku yi aw ko tamit kon dog tere ñel na la xanaa wax moo ni boo ma ko tàngee ñaari fan rek sax ñu lekk ko te ñii jur ñoo gën a yëg jur benn bi kenn yaa xaalis sama dégg Allah Allah ñii jur ñoo gën a yëg ci ci ñu lekk ah mu ni ko ñii ñoo gën a yee jënd weer bi mu ne ko innama huwa lil muxlam lii kat tuuti lay fan lay am rek sax yu lekkaat kon nañ ma tàngee ji lay tax ay su dama daal di jëlaat yére boobu teg ko ngir bu faatoon ñu tàngee ko ay su gis bi abakar faatu bi ko ko bis altine mu ni maa ngi leen di ñaan comme ñaan naa yàlla ba faatu bis altine dëkkoo bi yàlla na sallam bu ma faatoo nañ ma lëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñaari góor bu ma jam xaar lu mu guddi guddi guddi guddi guddi alal bi dinaa fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii kii tiitul sam jëm jëm dégg kii tiitul jëm yonent yàlla bi nee na saa bu nit ki faatoo nekk ku baax ruu bi dana waaye yéen yéen a yeex gaaw leen tuuli ma gaaw leen tuuli ma gaaw leen tuuli ma yéen a yore ak xéewal yi may fekk yàlla allahu akbar mu ne bu fekkee ci dafa faatu nekk taay taay ruu bi kanam yaa mooy dara tos kay ñeel lu ngeen gën a yéex mu gën a baax ndax su bëggoon ngeen ma jëlee sant yàlla mu ne wax bi day wax loolu Abubakar faat ci bis boobu di sub altine lam guddi guddi ñu suul ko ci kër yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam li muy faat wala naa si yàlla ak dëpp moom am na fii ci fukki juróom lenn fukki at ak ñett la dund comme ni ko yàlla dundee du moom fekk moo ko am ko subhanahu beneen bi ci gën a am mooy iitaaru yatuuqu xayaam góor ñi ak jigéen ñi yegg bopp waaye jigéen ñi lañ jël ndax tey ñu jigéen la ba yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa fekk loo xam ne dañ ko bëgg lool allahu akbar mbokk yi loolu nekk ñi koo yoon waaye def ko loolu fekk loo bëgg lool mu tax ci sa xol bi comme nit ci ni muy bëggee alalam wala doomam nga gis ni sa mbokkum jullit soxla na ko nga jox ko ba nga lay gis ne saxaaba yi doon xare ñu yuuxu ndax dañoo mar ndax ñu ngi tëdd ñu dem leen ay jam la nga yëkkati kër ba ngay waajal naan yëg ni am na kuy onk sa gannaaw ku la gën a sonn nga ni jàllal leen kër moo ma gën a sonn ma xaar tuuti soo ko dem ba koy waajal naan mu yëg ni moom kat am na kuy onk sa gannaaw ku gën a sonn nga yëg leen ko kële ndox ma balaa dem bay yem dëkk mu ci mu ni gën a may dégg sa kan ma ndox ma dégg ci waat ñun ñëpp baax na loolu mooy iitaan Xattaab Umar ibn Xattaab dafa woo benn tur bi am benn document jox ko téeméeri dinaar ni ko demal defal ma ko lii te boo ko joxee ba pare nan ma seen bayal mu digal mu dem jox ko taxaw ci buntu ci xaar waa ji woote diw woo dama joxal bay bi dama joxal bay bi ba affaire bi jeex mu yëkkati waa téeméeri dinaar ni ko demal defal ma ko bay bi te boo paree nga taxaw xool nga lu muy def mu taxaw génn laa xam su ci xool mu dem di woo ko xaraay ma daj ci lu ko séddale ba man yooyee doole def ni ba mu dellu ci wax ko lépp am rek nga xam ne ko gis nga li ma doon wax nii ñii ñoo bokk nawet maa kenn ku ci nekk sa bopp la gën a sa bopp est ce que ñu ngi ci wallahi rabbil alamin ci ko jégewul ko xaaj ñu ko ba koy def da ngay gis nit li mu am ne wala fi xaayda boo xam ne xaayidatun xabiixatun sania sama bopp ma la gën a dugal ñaan xaayda bu kon règle la boo xam ne xaayidatun kaafira règle yéefal la sama bopp ma la gën a dugal ñaan déedéet yaa ma gënal sama bopp te loolu taxul ma bañ sama bopp loolu moo doon wax yaa ma gënal sama bopp te loolu taxul ma bañ sama bopp wallahi lii mooy tax yàlla wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasara xanaa di ko tey kan ci ñun moo ko ci bu faasoo ñu dóor ko ci benn yeneen sa salam xaalis nee na dama amoon benn xalaat su ma doon bokk bokkal ci néeg naan comme ñi ci sama néeg te sama borom kër bi nekk su ma faasoo nañ ma suuf ci néeg allahu akbar وعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم موضع عبد الله بن عمر لما من تعاش لما من تعاش ليكو وعمر بن الخطاب مؤمن لو تكون سوى امير المؤمنين تحديث مثل الايمان في السفرة دقا من السماء الى فضل امير المؤمنين سبحان رب العالمين قال ولكن امير المؤمنين قل فاني يوم لست بامير للمؤمنين سيدنا امير الايمان في السفرة لما تعاش ليكو عمر بن الخطاب نيرا dafa bëgg ci paasoo ndax mboq ko tal ci def ci néegi yaram bi doo ko sarax ngir yàlla ci suuf loolu noonu lan laay wax man dama nekk amir mu fi nee na bu dee nañ ci suuf boobu parce que maay amir am naa sañ-sañ waaye loolu mooy yàq xam nga luy yàq mooy nit koo fekk ci ran moomee la wala loo xam ne yàlla ca loxoom la ko teg àndal ak yàlla boo ko bëggee def mooy amir moo tax ay fop moo ko wax waaye ñu tax ko wax ay sa laay wax sax boo ay saawam sax dana ñu ay xasta xasta baawa amal am naa ñu wax salaam te mooy amir lu ko yéeg waaye néeg bi néeg ay sal ay sal ci ëpp sant mu ni su la joxee ndigal su ma dee ma suul mu ni su la joxul ndigal nag su ma dee rayee ma suul ba xëy amee ba ñuy suul saxaar undur ila al adab li mooy yàlla li amatul léegi déedéet da ngay jaay daal kilifteef maa ko yile ko maa ëpp naa ko naa yooyu amul temps maa ko war waa abdun illa rafaahullah yéen yàlla na leen jaam bi di wàcc ci boppam lu dul yàlla ko yëkkati waaye boo yëkkatee sa bopp bu la yàlla dekkee leen ba ngay toroxee doo ko yëkkati ndeysaan Abdoulaye Mohamed ñoom mu ne Aïcha sama bàyyi dee ma yónni jaafam jaam ndax bu dégg ñu gën mu ne ko nee na mboq tam si dem ci néeg yàlla bi daa ko mu faafoo nga torox ko ngir yàlla ne suuf ay ko ñu dëgg ba mu yàlla ne ah wax dëgg yàlla day moom sama yéene moo nekkoon su ma dee nañ ko fi suuf waaye nag boo demee ne ko may naa ko lu ñu naan ngir yàlla allahu akbar xam nga ne Aïcha ñu ko téewal yàlla ci saw ak ni mu ko fonké woon ndax am ngeen wax naa tax ñu la amatul borom kër lu tax soxna yeneen sa sala lu tax dañu amal borom kër ginnaaw yeneen bi wa azwaaju ummaat mooy ay soxna yaay lañ ci waa àddina bi ko nit ñu sax yaay kenn góor moom def du leen mën a def amul benn ko yeneen ci des mooy saxaaba yi te loolu jigéen mën na koo jëfe saxaaba yi laaj nañ yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw jigéen bu fekkee dafa am borom kër yàqali kër wala mu baax mu amaat benn borom kër ci kaw suuf bu ñu duggee àjjana benn ñaar bi kan la ñëwee ci borom kër dana ma xalaat boobu yéen bi ne ko ci kër bi njëkk bi ñaar bi duggee àjjana ku jëkk la ko yàlla seen moo tax abu darda abu darda bi mu faatoo umu dara dafa lancé di wutal borom kër ñu ne ko lu tax mu ne abu darda tamal na ma loo xam ne mënu maa tuddaatal beneen góor mu aawee ñëw di amirul muminin mu ne ko mère mu ne ko kii moom a labatoo man nag maa ngi labat kii ndax moom njëkk na ma maa ngi ñaan yàlla teg ko ca àjjana joo labat ko moom parce que borom xam-xam yi jigéen bu ko neexee sañ naa def loolu njëkk na kon en itam li mu dikkee wax ko xarit sa tax pour wala ama allah mi ngi tubra Abdoulaye Mouhamad gis mu ne ko lu xew mu ne ko sa sa sa soxla ay sa nangul la mi ngi tëb jëm jàngaan gi nekk ba taw mi naanal mi ngi jaar jam jam bi génn dañu alhamdulilah rabbil alamin yëpp ci bopp mel ni mu kon loolu la Omar ibn Khattab defoon keroog bis boobu. Allahu akbar. mooy daje gi mu daje woon ak alim na bi bari nawkaatu jaman ak nawkaatu sëkkay lii moo lay wax doomu aadama doomu aadama rek la ak lu mu ragal yàlla yàlla day jóg yéen yàlla toog yàlla ni këy sama soxla kan ci yéen mooy koo xam ne xaj yeneen ci xaw ak danañ ko mbaw boo ko dee juum na ay ko dañ demee keroog ba ca jéeg ba mu dégg ay xaj di mbaw muy gaay ci fan ñu ne ko kii mooy xaw ak mu ñu wóor sa kere yàlla damay dëkk yonent bi nekk dama la doon dund waaw xaal su bëri ko doo dëgg ndax ñun lu ko tax doo dëgg te wax na dëgg te xaar yëpp laa xam nga doon a dëgg te waxoon naa ne musiba ju rëy yooyu musiba ju rëy waxoon naa ne la ko indi woon jullit ñi saxoo nañ ci guddi gi te ñeen ci ay accord ba dégg koo nañ ci musiba yi amoon ci diggante ray bu asmaan ak gën a liy génn fële waaye naa fekk yi ci biir mbooloo li nga jàngee bi dëppoon ci guddi gi arrangé wu leen xoolal undur ila nifaaq lu yàq moo ko yàq axsan aada noonu bi gën a léegi noonu mooy koo xam ne bu dikkee da lay sii ñam nga yaakaar ni moom la nekk xam lay si yab dina bubu is jox ko nekk kay nga bu la sii ñale nga rek daa kon ak garab kala la naa fekk yi bàyyi ba tuuti ñu gisee seen biir ñaar gis nga lii buñ ko bàyyee nii mu continue mu dib la yàlla nan la ñuy def nañ bàyyi ba trois heures du matin rek ñu jóge rek songandoo rek ñuy dóorante ay jaar su ko defee gars yi dañuy jëndee kenn yóbbu mu ni muñ ñi woon nañu xam nga loolu amee dañu jàpp ne kon soldat bi lañ si ñente woon ci guddi bi respecté wuñ ko loolu lañ def rek xeex bi tax seen digg lafa dee ci ay saxaaba ak ay taabi'un bu xam ne tool bu dee la sa xaatu bu ma yi bu lay wax lim ba fa dee ak gars yi fa dee ren lu leen tuuf wallaay sa xam bi day jeex ay jullit di rayal ci seen biir di tuurante fekk lii moo xool ay sa rëcc na ko ginnaaw bi dana wax Abdoulaye ibn Omar ne ko Abdoulaye lan moo tax may dem tere woon Abdoulaye ko ma lay tere wala ko xaw tooy ni man mag mu doy ni yow faa yi faa faa gu may def faa faa faa orwa ah faa gu may def faa alxa jiital la lu ma ci man mu ne ko wallahi boo ma tere woon danaa toog ay dana toog ba mu yàgg mu di ko jooy ba bët yi ñëwee ndax réccu lii mooy réccu mooy boo defee ñu da ngay réccu waaye nag njuumte la boo xam ne la imaamu Zahabi na wax laay wax rek ñaar ñoo xam ne yàlla nga ne yéen ñaar ñëpp li ngeen dugg àjjana man de seen affaire du ma àgg dee laay taxaw ndax man saa liggéey liggéey bi daa àjjana doy ma takk ak am solo ah xëy na sunna wal jamaa mooy la xewal ci biir saxaaba ya sa yónni wu al insaan am naa sudara bay nag di wa tool diw moo ko nangam di wa toole sa yónni wu su fekkoon ne ko war dem àjjana su góor dem ñoom ñaar ñëpp ku nekk am na garanti àjjana ñaar ñu war dem àjjana dañu ko loo ma jëleen àtt ba far di jaay tànn sawa ñàkk fay dama ko fàtte loolu kon aayita loolu di moom waaye nag ci bis yu mujj ci dundu Aïcha radiyallahu anha ginnaaw ko ci bu gudd bi ci ay jaamu yàlla ginnaaw ko ci bu gudd bi ci ragal yàlla ginnaaw ko ci bu gudd bi ci sacrifice ak kanam bi di joxe xam-xam ah kullu naimin sawfa yanfad xéewal gu ne day xëy jeex wa kullu jadidin sawfa yabla lu bees day xëy ràpp wa kullu xayin sawfa yamuut kuy dund bis lay ñëw sa bis jeex li bi tam yeneen bis jeexee Abubakar ay bisam jeex Aïsa nag ay bisam nii nii tey nag jeex na ci àddina allahu akbar keroog ñu tëddee sukra Abdoulaye ibn Abbas daa ñëw fëgg ñu nekk ne Aïsa ah Abdoulaye ibn Abbas da moo lay seet mu ne bu ko kenn bu ko kenn wax mu na toog ñu ne ko lu tax kii xanaa xamul muy doomu bàyyi mooy doomu bàyyi yéen sax la nangam nangam wax wax ba yeggal mu ne Abdoulaye Mame Bass dafa baaxul bopp dafay ñëw di ma tàgg di ma waxal ay wax te man fi mu nekk nii maa gën a xam sama bopp samay njuum te doy naa bëggul sax ma waxal ma koy yaakaar lool ndax dama doon demal ba mujj lam doon toog mooy lam Abdoulaye Mame Bass ñëw ne ko ñëw ci yow yaay soxna yonent bi yaay soxnaam bi gënoon a ndaw ay wàcc ci alquran yàlla bi la tëddal amul jàkkee ci àddina bi ci ñoom may jàng waaye yow nag boo yaakaar kuy yaakaar Aïcha ne wallahi yaa lay tëjee kuntu yow ma nasiyan man ci yéen ak a neexoon tey ma mel na Mariam doon wax mooy ma nekk xabarkaar ñu fàtte ma kenn du ma tudd ci Abdoulaye Mame Bass li ngay wax man dugg ma dee njuum te yama defoon loolu jéggalu ko sama borom doy na ma fekk ko xam allah ku yonente bi yow ci sang jigéen ñi àjjana yi ngay bokk taxu ba léegi nag nga ñàkk ya nga am yaakaar bi jëg bi maam te taxu ba léegi nga naagu moom laa bëgg a wax yonente bi ne ko yow ci sang jigéen ñi àjjana yi ngay bokk te yow sax sax war nga doon fii ak ak àllaaxira wax dëgg yàlla muy wax nii la bu dee dama xel bu doy la waaye déedéet ab julit dafay war a tiit ci ay bàkkaaram comme moom laa ñu xas di ko njiit di waaj a daal toj moom yéen tamit bi dee yéefal na ay bàkkaaram day mel ni la ñu romb ci bakkanam nii lay def fël ko rek pare na loolu Aïcha radiallahu anha mu ni man de naa ngi doon doy di bëgg sax lañ ma suul fi suul yaram bi waaye sama njuum dañuy tax bëgg sama ñu suul ma yóbbu leen ma suul ma bañ suuloon ay soxnaam muy tabax xibaar ci weeru koor ci atum juróom fukkee ak juróom ñett ci gàddaay yéen sa salam feebar bi gën koo sonal na ah ci guddi salaata tombe fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ah guddi googu nag ci la sunu borom subhanahu wa taala dogal Aïcha war a jóge ci àddina radiyallahu anha keroog bi Umu Salama déggee ne Aïcha Fatima dafa jooy mu ne wallahi laqad kaana ahabba annaasi illu ila rasulillah illa aba wóor na ma ni su bàyyi ni génnoon ma ne ci yéen bi gën a bëgg ci kaw suuf kon Aïcha la noonu ci guddi gi mu moom dafa digle comme li ma waxoon sànq nañ ko suuf ci guddi dañoo di liggéey def seeni naafila julli witar ba noppi doo koy jullee suul ko ci guddi loolu ci tekkali ci su yeneen woon suul guddi mën naa nekk ci kaw bu amee lu ko sanam ki ko jiite woon mooy Abu Hurayrata sahabi al jalil radiyallahu anhu wa arda kon daal mën na wax lu dul la nga xamante ni moom la suñu borom doon junj di ko yaakaaroo di ko gàddaanee yiw ci Aïcha radiyallahu anha muy inna al muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir dëgg boo xam dafa fees jële ci yiw ak ci mbaax ak ci ragal yàlla lii lañu yaakaar mu nekk bunt muy aljanna rawatina ba ko yonte bi jigéen sallallahu alayhi wa sallam soxna mujj yi mooy lii nag jullit bi jigéen bi nga xam ne dafa bëgg modèle dafa bëgg exemple dafa bëgg ku mu roy dafa bëgg xam nag lay jaamoo boromam wallahi Aïcha ngi ni fi kulli shay fi kulli shay jaamu yàlla déggal sa borom kër ragal yàlla dëddu àddina nangoo jàng bari xam-xam tey jàngale ah tuub tuub bu dëggoo nii damay li nga soxla ci sa dund baaxee woo baaxul ne dama ne la dajale ci dundu waa jii ah su fekkee ci jëfee na ko de yàlla mën ko defal taw ci yàlla yàlla defal na ko هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين